bi jaayi xayri ma nabaat jërëjëf Balla Aïssa yàlla yokk taxawaay bi gën a rafetal liggéey bi waaye sëriñ Fallou sa doom moo yónnee ci yow mm, man de tubaar fakal la daf maa dugal ci groupe am bii ndax li ma la wax bii rek fu groupe sëñ Fall ne maa nga fa soppe yu ne damay daw fekki leen ñu ànd foofu sopp sëñ Fall ci du teema sopp ko fi ci Touba tubaar fakal la sëriñ Galas di doom ju yàlla baaxal li ma ko naan ba nga ganee àddina ci tuubaa war a jàng seen baay ba gàttu fan rek lañ cey jooy Serigne Abdou Aziz naqari leen yéen ñépp ndax taar ba ak mbaax ga ak jom ja bëgg ga mbokk Serigne Bassirou mu jëwu ko nag mu réer teye doomi Serigne Abdou Aziz yi ñoom ñépp dañ waree jàng mu jàngal leen dañoo nangu lam leen war a defal ci wàllu góor yépp nangu nañ ko ba mu màggeet takku dama ko ne bind wutlu woo ay njël wutoo ay taalibe ñuy yalwaan dafay nangoo liggéey ñëw ba sa buntu kër mu dëkk ak yow ubbi fa palaasam di daan doole ci mosoo faa gis lenn loo koy tere nde kon da ko fay woo baa nga fekk ko faaku ba ni ko jógal ci lii nga ne bëgg a jub bëgg a baax ak leeral la la muy liggéey ñëw tax mu ñëw ba jàkkaarloog sa kër di añee sa kër di fa reeri di liggéey di dem di dikk di doom jo am jom gàccaaluñu benn yoon. yàlla def mu jóge fii ci dëkk bi dem yëpp yëkkati fa daayira soppey seexu naa seexul xadim bi baayam bii di sëñ abib mii yàlla def muy liggéey tubaa ca kanam yàlla def sëñ bi wax ci jaayante bi ci benn semaine ci la sëñ fàllu wax ne moom tamit dootu lekk dootul naan dootul nelaw nanu joxe kenn ku ne loo am na ko joxe ci benn semaine la woote lii ndax kat sëñ fàllu ma nga fee waaye umpantewu la baayam bii lii mooy suñu tànk ñun nag ay taalibe lañu boo toogee sax mbàkke bal suñu wax warta a bari waaye nag ku jub dëkk ku jëm fenn foog nga tudd fa nga jëm bu ñu ñëwee foog ñu leeral li ñu tax a jóg lii mooy suñu tànk moo nu taxee jóge Dakar ñëw fii ñëw nag bi nu ñëwee kii di jëwriñ ba mu yëkkatee daayira ba yàlla def muy xaritam yàlla boole leen képp ku nekk Amérique moom moo ko dugal ca daayira ba soxna ak yàlla Njaay mi nekk Paris di liggéey moom it ci tubaa ci kanam di xaritam yàlla def bi mu ñëwee ñëwee mu ñëw Sénégal ñu wax ko ko mu ñëw participer ànd ak ñëw ñii ci daayira bi lañ bokk lii mooy suñ tax sëñ maam as mi mooy jëwriñ ca daayira ba lii nga xam ne nag dañu koo tàmbali ren ab tàmbali la yaa am yàlla ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax waaye yaa kewe faal mi day ku mat sëriñ Fadilu Mbàkke nee na na nga ko na ko na ñaanal bu baax liggéey bi da ciy def def gu rëy ndax këll bi rek maanaam eh, coono bu nekk daj na ko ci ngir nu liggéey këll bi ak ña ko doon liggéey tey am nañu bokk ci liggéey bi ci agsi wunu fii ña ko doon monteeg ña nga xam ne eh, boole nañ ci seen i xalaat ak ñëpp mu bëgg nga fasaale leen rawatina nag ki nga xam ne moo ko yor ci këll bi di soxna Fatima Fadilullahi kooku ku nekk xam na ne këll bi eh, fi mu toll mën nañ ne moo ko fa tollal moom it jàmbaar la ci lool. ndax xam nga ne laaj yombut dina am ñu la mere dana am ñu la bëgg te it ku ci nekk dana la jël ci suuf laaj la ngir bëgg nga def ci saw ñaq kon ñoom ña nga xam ne nii ña nga ca bitim réew te wuti lu ñu indi ci njaboot gi rekk moo tax ñu dem suñ borom yombal seen i mbir ba ñu am xéewal yaatu ba di ko mën di def ci Touba ca kanam ndax yaakaar naa ne jamono ji kuy jullit rawatina ko dib taale bi bëgg naa mi xéewal ba tàbbal ko ci liggéeyub Serigne Touba bi. Touba ca kanam damaa ñëw ñoom ñii ñuy samay nit ñu yori groupe bi daayira ma ko. ñu bokkante ma bokk seeni groupe ñu bokk samay groupe man mi ñoom ñi ñuy def parrainage ma ne ko man demaa ngi ci Touba ca kanam yoroon naay parenage mais léegi dama bëgg 100 pour cent Touba ca kanam kon dama lay jox samay parrainage mën ne ma ñu bokk ci yow ci Touba ca kanam li ma fi defoon ci koor gi ñëpp ko gis ñun ñii ñoo ko àndoon def kon benn bi lañ ak daayira soppee sëñ Fallou kon buñ demee ba liggéey bi ñoom ñu ne ci ba mu egsi fii man dama ciy sant bu baax a baax di ci kontaan di leen ñaanal. li ñuy yëkkati mooy ñu jàppale Touba ca kanam ndax ci lañu bokk sëñ Galas nag dafa formé daayira daayira boo xamante ni ñun ñi ñëpp ci lañu bokk ñu fi toog ñëpp soxna say Touba ngi nii sama ginnaaw soxna. nday wañ lawbe galas a ngi nii soxna ami yàlla njaay a ngi nii kewe faal ngi nii ak kan mi jaw ñun ñoo àndandoo tey ak maam As Lo mi euh, ngir indi suñu participation ci ndigalu nag sëriñ Galas Mbacke ca Belgique suñu sang boobu nga xamante ni liggéeyal maamam rek moo ko tax a jóg di jàmbaar lool fonk la lool nag yow mii ci sa bopp ni ngeen demee bu ne wax nañu ko ñun ñëpp fonk la lool ni kooku daal day suma baay boo xamante ni lu mu nekk rek dinaa ca nekk waaw ci la ñu ñëw nag pour indi suñu participation ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant Serigne Touba ñaanal mun Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ci jataay bi yëkkati kàddu ci turu Serigne Abibou miy jëwriñu Touba ci kanam ak Serigne laat moom seriñ Abibou sëñ Murtala moom sëñ Abdou Fatah di leen nuyu bu baax di leen siyaare ci turu sëriñ bi yéen waa daayira sopp sëriñ Fallou Touba Belgique jëwriñu ci jëwriñu sëriñ Fallilou Mbacké moom sëñ Abdou Aziz moom sëñ Fallou ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di am mbégte ci ñëw gi nga xam ne ñëw ngeen ko ci Touba ca kanam ñëw gi nga xam ne ñëw ngeen ko ci Touba ñëw gi nga xam ne ñëw ngeen ko ci liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne Touba ca kanam mi ngi koy taxawee ci ndigalul Serigne Mountakha ci njiital Serigne Abibou mii di leen ci sant bu baax di leen jaajëfal ci pas-pas bi nga xam ne bokk ngeen kook ñun te Serigne bi Serigne Abibou bi muy woote ci Touba ca kanam borom pas-pas la woowoon borom alal ak boroom xam-xam borom doole ngeen boole pas-pas ak làmb seeni pas dajale ci njiital. sëñ Fallou mbakki moom sëñ Abdou Aziz ca Belgique ni ngeen ko waxee mu taxaw taxawaay bu am solo foofa te pasteefu lool ci liggéeyal maam sëriñ bi te muy li nga xam ne eh, njabootu sëriñ bi yëpp ci lool rek lañ teg seen tànk te mooy liggéeyal sëriñ bi rawatina ci dëkk bi. bi ñu déggee nag sëriñ bi sëriñ Mountakha joxe ndigal ci ñu war a taxaw ci defar yoon yi taalibe yëpp fenn fu nekk ñu di fa dajale seen i di ko jaayanteeg sëriñ Touba ci dëkk bi yéen ngeen ñëw sosu ca loola ànd koog sëñ Fallou Mbacke moom sëñ Abdou ci teewaayu euh, jë jëwriñ universel soxna Awa Thioub soxna Awa Thioub mi nekk USA ak soxna Kewe Fall Maam Jaara ak euh, soxna Nday Coro Sey Touba itali ak soxna Fatima Thiam Falilou borom këllub Madial sëñ Fallou ak soxna Am Yàlla Ndiaye Paris ak Adja Maam Fama Thiam kon sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen jaajafal ci tànk yi nga xam ne dox ngeen ko ñëw ànd ak moom liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ Mountakha jox waa Touba ca kanam ñu ne ci ngeen ñëw indi ci pas-pas indi ci alal li ngeen ci indi tam toll ci million alal ju baree bari la waaye li ko ëpp mooy li ne ci ginnaaw mooy pas-pas ak yëg-yëg ak ku bëgg kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal fépp foo xam ne am nañ yéene liggéey bi egg fa ñu ànd yéen. te lépp loo xam ne luñ ci am la ñu bokk ko di leen ñaanal tamit ci ñaan gi nga xam ne mooy mooy moom la sëriñ bi bind ci xasida gi mu tudd jasaul ihsaan lil quddaam te moo nga xam ne sëñ bi dafa bind ak xasaayit jagleel ko mboolem ñi koy liggéeyal bayit wu si woowu ñuy wax waqdi xawaaija alladina daamu fi xidmati wa hablahum maramu ca la nekk waaye boole na ca weneen bayit wu am solo donte bayit yëpp am solo mooy wakun muhinahum ala umuri ad diini wa dunia madad duhuri di ñaan yàlla mu dimbali mboolem ñi koy liggéeyal ci seen mbiri àdduna ak seen mbiri àllaaxira eh, diirub jamono ginnaaw bi mu leen ñaanalee pajuk aajo ak lépp loo xam ne lu ñuy sàkk la ñu am ko loolu sëñ bi boo ko bind bind xasaayit boo xam ne da koo jagleel rek mboolem ñi nga xam ne am nañ pas-pas di ko liggéeyal di wax ne liggéey baa ngi nii Touba ca kanam a ngi nii laaj luñ mën la di ko def fu ñu xam ndax eh, nu leen neex rek mënoon ngeen koo jaarale addiye waaye bu ñëwee dañ koy bind ci brosse yi teg ko ci seen loxo defar affiche bu koy firndeel fésal ko ci àdduna bépp ba ñu xam ne te yéen ñi nga xam ne yéen a takkatoo indi lii fii la jaar loolu mooy delluwaat nag ci laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam liggéey bi tamit fépp fu ñu ci toll ñi ko mën a teewee na nañuy ñëw ci wàcc ci dëkk bi di ko gis ñi ko munta teewee ne nekk fi sori danañ ko def fi vidéo di leen ko yónnee ñuy xam ñuy xam fan la liggéey bi toll lool nag li muy tekki mooy day liggéey boo xam ne liggéey sëriñ bi la mbokki taalibe yi takkatoo di ko def ci njiital sëriñ Abibu mu tegu ci transparence bu wér te leer te loolu mooy li nga xam ne jëpp alal joo xam ne ñoo ngi koy dajale te mbooloo seq ko noonu la war a demee donte ñiy joxe nag sëriñ bi la ñuy jox waaye war teefu Touba ca kanam ak waa Touba ca mooy li ñuy jot ñu di ko leeral te di ko dugal fa tax taalibe joxe ko tey ñaan yàlla sëriñ bi boole ñu nangul wajalilaay maskani Touba misras mi abi jaayi xayri ma nabaat